journaliste euh, quotidien ba moom it convoqué nañ ko ma jambal jaañ ne maa nga bitim réew waaye dinaa ñibbi si Thierno Alassane Sall daal ne mbiri Kandé mi lu dangereux la ci arme bi mu ngi artu gouvernement bi Ousmane Sonko ne def leen ndànk rek kenn mënut a déstabiliser réew mi na waa réew mi tëdd te nekk ci jàmm te xam ne jàmm rek a fi am waaye képp ku lekk alali réew mi mu yàgg mu yéex di nga gox li nga lekkoon waa APR ñoom dañoo dajaloo. ne dañuy wax Bassirou joomay Diakhar fay président bu Sénégal ngir mu wàññi dund gi ndax dund gi dafa seer Amy Ndiaye ñii bi ne dafa am projet de loi boo xam ne walli góor jigéen yi la bëgg a criminaliser moom am Ndiaye ñii bi ba ñu ca toftalee leneen la kon euh, président Bassirou joomay Diakhar fay fàttali nit ñi bés bi nga xam ne bésub setal la bu muy woote ngir waa réew mi ñëw ngir ñu setal réew mi waa Sonaget génne ay camions yu doy ak mbooloo mu takku ngir ànd ak moom ca loola. union européenne ñoom nee nañ dañoo xool élection yi fi amoon ni mu doxee ñu xool li ci baax xool li ci bon am ay mbir yoo xam ne dañ ñu ko dénk ay recommandation yu ñu war a def 49 gaal ñoo nekk ci suñu géej gii di napp te amuñ benn licence ay fraudekat lañ di sàcc rek di yóbbu walay walay ambassade France ñu ngi def nu mu leen neexee visa nu mu leen neexee benn français la ñu rey Cap Skirring jël ay 10 millions ba pare suul néew ba